kaay waaw kaay kaay kaay grand bu baax. mais grand ko sànni sa carte Sonko wala Barthélémy Dias wala Amadou Ba. Euh, man la Modou leen di nuyu bu baax di leen sant di da ma posé question ma sànni sama carte Sonko wala Diomaye dëggal Sonko wala Amadou Ba wala Barthélémy Dias 1960 ak léegi ñaataat la bëri na. Sénégal 1960 ba léegi benn système moo ko yoroon ba dugal Sénégal ci benn pax benn kamb kamb googu tey Sénégal du ay politiciens ñoo koy defar ay révolutionnaire ñoo koy defar Sonko ak Jomaay nekkuñu ay politiciens ñooñu ay révolutionnaire lañu dañ ñëw pour li fi nekk 1960 ba léegi ci même système bi di napp seen askan di jël seen alal di koy yóbbu fu nekk est-ce que tu as compris di jël seen askan di leen noot suñu or suñu phosphate suñu lépp ñu jël ko dëgëñ ko jox ko tubaab bi ñoo fi dokk 1960 yàlla nag si ñaan mag ñi fi nekkoon tey Sénégal di ñaan pour Sénégal am xéwal am barke li fi jël suñu borom wàcce pour Sénégal yi jëriñoo ko ñaan ngoo moo nangu moo tax Diomaye yi ñëw ak président Ousmane président Diomaye yi ñëw ak suñu ministre Ousmane moo nangu ba ñoo ñëw tey bëgg ñëw Sénégal si li ma wax nag Ba Khalifa. d'accord nga Macky ñëwaat si baatu campagne nañu koy xaar. Macky ñëwaat si baatu campagne kooku saaga Sénégal yi la. ah bon Macky même système bi la 1960 ba léegi si même système bi la ci la Macky Sall bokk. Sénégal yi léegi su fekkee bëgguñu wor seen askan ñun population bi bu ñu wor suñu askan mi nga xam ne dañoo dee si xeex bi xeex si seen bakk seen bakkan wadd kon ñooñu bu leen trahir xam nga la ma trahir nga xeex ba ay bakkan wadd pour intérêt senegal pour Sénégal bu jëm kanam. tey nga bëgg wëlbati ko waat même système bi ñëw nga bëgg àndaat ak ñoom léegi Macky Sall bu ñëwee bëgg campagne wala Amadou Ba wala Barthélémy Dias bu ñëwee lan la ñuy wax sénégalais yi bu fàttali ne Barthélémy Dias lu mu doon Sonko ko def mais ba mu jekkoo dafa trahir Khalifa Sall Amadou Ba ñoom ñëpp ñoo trahir sénégalais yi ñoo taxaw ne dañoo corrupt dañoo ay siis lañ corrupt def lañ lañ def ay corruption jox leen xaalis bañ bëgg def système pour taxal élection yi pourtant Sonko bu ko neexoon taxaw ne sama intérêt lay xool kon élection yi nañ ko toxal ndax ma a bokk waaye dafa ne même bu dul man ñu ànd ak man am nañ projet bu leen ko porté moo tax mu joxoon Jomaay Fay kon kooku gor piir boo koy wut Ousmane Sonko la kon lim ñu dig te gisaguñ ko moom laa gën gëm fi ma toog nii sama téléphone ma yor nii li ma Sonko ak Jomaay dig te gisagu ma ko laa gën a gëm sama téléphone ma téye Sénégal yi dañ am ngor xam ne senegal duñ ko defar ci weer juróom-benn fukk at ak nangam ñu yàqam réew ci ay 6 mois nga bëgg a àtte ñu yor si réew 6 mois naa weesu loolu 6 mois kenn mu sa defar kër sàkkantuma ak réew réew mi suñ bëgg a defar foog mu métti parce que ay tappale fi nekkoon ak sàcc ak naafeq ak lobi lobi yi fi nekkoon nag tey pour mu jógee fi day jafe fay ay nit si ay télévision ñuy toog ñu naan ay chroniqueur lañu di lañ jox xaalis loolu daf fiy jeex di fay nit muy wax di saaga loolu daf fiy jeex réew mi léegi ñàkk jëriñu la. dëgg moo koy lal Serigne Touba lu mu am da koo jaayante dañ ko yóbbu Gabon mu def juróom-ñaari at ak juróomi weer dafa métti balaa mu taxawal yoonu murit l'islam ba muy taxaw xare Badar si weeru koor liñ saa salaam taxaw xeex ta yàlla bu ko neexoon nag xare Badar du am l'islam day taxaw ku nekk Afrika waaye déedéet yàlla lu mu yor mayewul kon Sonko ak Diomaye li ñu def nii dañ koo xeex ñafe ko mais Bougane Bougane mu ngi Sonko Sonko nee na Sonko moo ko jàngal li muy def Bougane su fekkee li muy wax dëggal moom nee na bu Sonko waxee midi bu Sonko waxee midi mu wax une heure pourtant Sonko wax te waxul ba Sonko ne Pastef du ànd ak kenn day lebal boppam Bougane bu gëmee boppa na taxaw ne kon gëm su bopp du ànd ak kenn day lebal boppam su fekkee ne li muy wax la gëm na ko wala Sénégal yi gëm na ko Sénégal yi Bougane yow sa télévision bi nga yor képp ku fay cadre am xam-xam ñëpp bàyyi leen la kon nga xam ne yow boo ne intérêt Sénégal moo ñor da ngay nax sa bopp kooku intérêt moo ko ñor. Barthélémy Dias bokk na ci course bi. non Barthélémy Dias bokk bi sa arrangé ko xam nga arrangé ko dafa ngémbu mbënam élection 2024 yi seen bureau ba dañ leen fa duma Bart su bokkul moo koy arrangé bokk bi sa arrangé ko bokk sa Bart lu lu mu Sonko moo ko teg gis nga maam moom Ndakaaru Sonko moom Sénégal moom moom Afrique maam moom Ndakaaru yomb na Sonko moom Ndakaaru moom Afrique Sonko li mu def Nelson Mandela sa def ko Nelson Mandela xeexul système bu daanu déedéet xeexul système mais Sonko dafa xeex système bu nga xam sa 1960 la ay tubaab ay Sonko xeex leen daanal leen kon kooku du moromu Nelson Mandela surtout journaliste yi ak télévision yii bu ñu amee li ñu war a wax si Nelson Mandela Sonko fi war nañu wax si moom Ousmane Sonko ak Diomaye Faye moo gën te bàyyi naa fekk yi. mais mais mais Macky Sall war naa dox ci ci avion nekk si avion ab jigéen di dab naa ko yaa rey suñu doom yooyu wax jooju tamit ñenn ñi jàpp ñu dafa ëpp. Macky Sall Macky Sall Macky problème am problème Macky Sall xam na la xol bi. Macky xol bi moo ko tooñ Macky jàpp na ba léegi moom jàpp na ba léegi ba ba muy taxaw Maroc dafa jàpp ba muy taxaw Maroc dafa yaakaar moom ba léegi mooy président Sénégal moo tax jaay doole gu mu doon jaay doole Sénégal yi askan Sénégal yi mu dem ba Maroc. saa waay saa waay dafa abonné saa waaw est que dégg nga li may wax Macky Sall bi mu wax ak boobu dafa yaakaar ne ba léegi mooy président Sénégal te xamul ne moom système bi dam dee bu yàgg. bu si réew mi nag aéroport ñëw Macky Sall ñu lay baat campagne. Macky Sall boo ko jox boo Macky Sall boo ko jox atuloo si biiram du ñëw Sénégal campagne. du lu tax Macky loolu am na ay mbokk am na ay soxna am na ay doom ñoo naan ko hey papa toogal Sénégal bu fa dem Macky Sall du dem Macky dafa yëpp ay nitam rek muy wax waaye Macky du dem ant Karim Wade ak Macky Sall moom Karim Wade lépp lu naqari bàyyam Abdoulaye Wade Macky moo ko teg kon suñu àndaatee dañuy théâtre c'est ba ñu toog noppalu ba mu jaaxlee. day ñëw boo ci ginnaaw Ousmane Sonko ba yaakaar ne am nañ doole moo tax ñu war ñooñu nañ toog noppalu système bi fi amoon amatu fi léegi beneen politique bu bees moo fi am liggéey Sénégal mu jëm kanam population bi sonn nañu li leen sonal ay politiciens yoo xam ni da ngay falu même pas un an ngay wër ay 4 ñuy buntu kër joxe ay xar ak ay saako soble dafay jeex. mais grand grand toppe bi toppe bi bari bi fan yi toppe bi toppe bi jàpp yi. ñoom dañuy sàcc xaalis gaa yi dañuy sàcc ñoom ñoo jàpp seen bopp ñu ngi topp. ñoom ñoo topp seen bopp ñoo jàpp seen bopp kenn jàpp leen kenn topp leen ñoom ñoo jàpp seen bopp xam nga réew boo ci nekkee réew boo ci nekkee gis nga sëñ bi Sénégal yi bañu ñu jëlee Ousmane jël Samba Tine teg leen ñu xam na jaay doole jeex na Sénégal Sonko su bëggoon jaay doole du indi Ousmane Diagne di ko teg du indi Samba Tine di ko teg Ousmane Diagne lu mu may Abdoulaye Wade du ko may Ousmane Sonko Ousmane Diagne lu mu may Macky Sall du ko may Ousmane Sonko. kon su fekkoon tappale moo tax Ousmane Diagne kese Sonko bëgg a tappale ak jaay doole duy ni Ousmane Diagne day seeti beneen nit système boo xam ne bu ko neexee jaay doole kese la ndax mi la justice Ousmane Diagne ku xam ne nag dëgg rek lay doxal kon Sonko talu leen Sonko topp leen Sonko lijjatu leen Sonko Sénégal yi ñoo ko bëgg ñu Sonko topp ñu ne Kër seefu Sonko la Sonko moom moom Kër moom moom Sénégal moo waxoon gatsa gatsa gatsa gatsa waxin la fii la ko waxee fii la ko waxee woon Sonko mooy borom Kër Massar mooy Sonko chaque minute chaque seconde dañ koy gën a bëgg waa parce que dañ am yaakaar moom te ñu dëgg la Sonko du fen ak Diomaye parce que alxuraan duñu fen découragé nañ découragé ñun tey lañ gën a jàpp Sonko quoi. fi affaire dafa métti. dara méttiwul daal mayu leen dara. lu neex du maanaam balaa muy neex dëgg-dëgg il faut day métti quoi. parce que dara gër dara xëyul rek sotti ma dara xëyul rek sotti quoi voilà parce que président Ousmane Sonko moom vraiment Sénégal gi yëpp den ko amee njukkal quoi parce que Ousmane Sonko maanaam dafa ëpp président Sénégal maanaam président Afrique la ñun moom ba léegi nii bàyyeeku yaa ngi sama carte passé baa ngi man Mouhamed Gaye laa moo ngi nii carte baa man Mouhamed Gaye laa tudd maa ngi fii Kër Massar mais nag damay demander quoi président Ousmane Sonko man damay demander mooy département bu Koupentoum commune bu Bamba Thialène ñoo koy demander di ko ñaan ngir yàlla war campagne bi ñu koy sàkku defe leen bëgg leen bëgg na ñëw ñun ragaluñ loolu quoi ñun daal ragaluñ benn kii na ñëm ñëw mais mag Sall moom su ñëwee li ko fii xaar moom xam na ko bëri na parce que musiba yu mu fi def yëpp yow umpul la umpul ñii ñëpp parce que Macky Sall moo yàq Sénégal ba pare daw dem yoonam mais ñun ñu ko fii xaar yàgg yàgg jaan ci kaw euh, euh, tànk ci tànk ci suuf jaan ci kaw yàgg yàgg dinañ daje ci ci ci ci suuf si quoi.